waaw xam nga fu ma jugee waaw di ko sant moom moo ma jël ko waaw di ko sant di ko ñaanal yàlla wér gu yaram ba suuru làmb ji yàlla may di nuyu sama mbokk Pël Fuuta fo iɗon hiwrade o ɗon fof kala ko ɓiɗɗo pullo Fuuta woni na sina hiwrade o toronoɗo lam ɓiɗɗo mon on billahi wallahi mi kono meeɓi billahi eyi koto mamoudou e koto jogo mi weltike sanɗiñeeri ɗo fof ɓe yalto wawi guine popoɗara kundara kala koɓiɗo pulo fuuta woni ara e wallitoɗolo fi allah e nulaɗo di nuyu tamit sama mbokk séeréer yëpp képp ku may rek maa lay nuyu ku si mel ni simal waa simal père Giron xam nga maa ngi nuyu ñëpp waaw waa Foundiougne waaw waa waa Jaxaaw Siin père bu maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama benn kilifa bu mag mooy Touba waaw bon bëggul ma tudd turam mais taaliba sëñ Fallou la maa du nuyu képp koo xamante ni mu may jàppale rek maa lay sant di la gërëm di nuyu sama grand bas bu baax képp koo xamante ne rek yaay sonn si man waaw ah maa lay nuyu gis naa nuñ ma jàppalee bu ma génnee ba léegi di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay di sant sama waa kër waa Tiwaan Pël sama ñoom nijaay maa leen di sant bu baax di nuyu nag fu ma jugee waaw muy 100 mètres waaw Gaaw Cissé dañu war a jug si kawam quoi ndax lii du yoon barki maam Seera waaw warul des doomu sénégalais la am na lu am na lu mu def si làmb quoi nañ ko fay si loolu si meeram gaa nañu xool si meeram war na Serigne Touba ak wa Sébi sama booy ñoom Bouye ñoom Guy gi fu ma nekkoon 49 xam nga ñoom Cheikh maa leen di nuyu waa Campenal ñëpp képp ku am nattu rek maa lay ñaanal yàlla nga caabi xam nga la ginnaaw gaan nga génn ndax ay doomu góor ñoo fa nekk barki maam Seera Fall. mais looy dig say supporters le 11 di woo waa Medina ñuy jug bu baax. waaw di woo autorité yi fa nekk gars nañu jàppale ku si mel ni Cheikh Ba Bamba Fall Messi Bamba Fall yow lañ tuddee lamb ji te doomu Medina moo war a bëre gaan wala boo billaa wallaa retour la warul yomb jàppale leen ma gaan waa Medina ñëpp waaw képp waa Derkele Cité Mareng waa waa Liberté ñoom Amath gaan génn gaan sama boy bi fa bambara gaan génn leen. mais laam gaan waruma ñàkk dara. barke maa da ngaa tàng tey ma tàng tey sañoon tey laa war a bëre gaan woon sénégalais am na lu ma am na wax baaxul quoi eh, yàlla baax na. daam lu bëgg a wane xanaa yàggatul. daam a wane. wax ju bëri di santaaj sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax jabootu sëñ Fallou bu baax waaw di nuyu sama grand Aba Thian Idi. maa yi bëggee bu baax combat bi sa combat la di nuyu promoteur bi père Assane Ndiaye waaw waaw di nuyu waa Pikine waa Ridis gaan sama papa Abdou Salam dañoo sonn si man ñoom Pikine ñoom Abdou ñoom Pokola gaan maa leen di bëggee bu baax waaw xam maa ngi nuyu waa France ñoom Madou Mamour waaw ñoom Mbacke ñoom Simer gaan yee billahi Mbacke képp sama am fu mu def Babacar bu ma génnee ba léegi gaan manqué wu ma dara kon instant waratuma caaxaan sama avenir quoi barki maam Seera Fall billaa wallaay waratuma caaxaan dara. su la déggee sa carrière da nga koo bëgg a téye léegi amee teg ko ci yoon. te léegi ma gën a dimbali gaan gën a xamaat man maay kan xam sénégalais yi fuñ ma teg. ku la la. yow laay de. <laughs> yow laay de la. coow li lan normal nag ñoom mosu ñoo bëre ku mel ne Gackou doy moo tax. ku mel non non man ñi ma bëreel Bébé Diène ëpp leen ëpp leen coow ëpp leen coow làmb de non non. ñi ma bëreel ñëpp coow làmb. ñu ne Gackou 2 waru ko woon jël ñu war na xaa jël. waroon naa ko jël weesu na jël naa ko suñu combat mu ñëw. waaw indi la mu indi woon diggante ma Boy Dakar. lu ko raw la ñuy indi incha allah waaw. si xeex si bëree si lépp Gàkku de wax la si am. waaw moom kay moom mooy wax moom boobu léegi may wax de TikTok yi moo nekk si TikTok yi moo nekk si Facebook moo nekk Instagram mi ngi wax rek. li muy wax yëpp maa ngi koy maa ngi man maa ngi sama ruq di entraîné toog jàpp sama ñaamur moom moo feebar wax ji de est-ce que moom moo ci am wax rek. moom wax rek moom moom moo ci am wax rek wax rek la jàmm moom. li wax rek bu ba. Assane Ndiaye. Assane Ndiaye li ma wax mooy moom. li mu war a def yëpp na ko def rek ñun dinañ def suñ li ñu war a def. maa ngi woo waa Guédiawaye di woo waa Pikine di woo waa waa waa waa Kajoor gi yëpp di woo waa Kébémer jokkul sama dëkk jokkul jëwriñ di woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñiy jàppale Gakou waa Xinaan 3 si la Barak marché Bees marché Ndiarème marché Sam xam nga marché maanaam fiñ mi géejuwaay gi yëpp maa leen woow maa leen woow bu baax mobilisation bi nañ ñëw arène nationale fii suñu arène nationale la ñun ñoo buñ fi bëree dafa war a rafet dafa war a nañ ñëw mobilisation bi gën a naaj xam nga loolu laay loolu laa lay kii di di gërëm sama gars yi ma àndal nii maa leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dañoo xaw a xaw a tax bu ma lemee damay jum xam nga tey bu Serif Serif an Baye Jibi bu ma leen waxee rek wax naa gars yëpp xam nga maa leen gërëm ñu ngi sonn si combat bi baax a baax baax gis naa gis naa ni taxawoo maa ngi woo ñëpp Pam Mama maa ngi lay woo Omar Bass maa ngi lay woo di woo Aliou di woo Malick Gakou sama turandoo di woo Lat Diop di woo Amina Aidara maire Guédiawaye maa ngi woo maa ngi woo maa ngi woo yëpp yëpp liiru waaw liiru monument Guédiawaye kooku suñu grand la sunu xarit la sunu lépp kooku day sonn si combat <laughs> danga yaanga